bu dee ne coow li jóg la am na ñu bari ñoo xam ne nii am na lu ñu ëmpale ci lu ñeewal accusation yi nga xam ne daal dina tegu ci ndoddu njiitalu Pastef di Ousmane Sonko moo di daal li jara seetlu ba seetlu mooy suñu naataango yu l'Observateur am na ab jàngat boo xam ne indi nañ ko ci ki nga xam ne moo di Adji Sarr mi duut ab baraamu tuuma Ousmane Sonko ne da ko daan violé moom moom la di ab xale bu jigéen am lu toll ci ñaar fukki at Adji Sarr daal di fekk baax ci benn dëkk ba nga xam ne mu ngi nekkee ci diwaanu Fatick. te la ñàkk lool way juróom bu jigéen teg ci way juróom bu góor moom moomu léegi ginnaaw daanaka mën nañ jàpp ne fu mu toll nii dina bokk ci ñu gën a siiw wala ñi nga xam ne ñuy gën a maanaam seen tur di gën a fës ci li nga xam ne moo di Sénégal rawatina ci yenn doxalin yi. li ko waral bu waral moo di ne ci ab gëstu bi nga xam ne dal nañ ko amal moom ma la day ginnaaw ay yoon yoon ci liggéey yi nga xam ne jot na ko nekk yu métti métti daal di sax nag boole ci am njàng moo xam ne mu la. ginnaaw bu mu amee lu tollu daanaka ci atum 2010 ci la ñàkk li nga xam ne mooy ji way juróom bu jigéen moo moom mu lay dala daldi rek ñàkk way juróom bu jigéen daldi ci teg ki nga xamante ni moo di way juróom bu góor ci noonu moo ni day fa nga xamante ni fa la nekkoon di fa amal ab liggéey moo di ci maanaam salon de massage boobu lay di Sweet Beauté moomu mu ne am na ci leneen loo xamante ni ràññee nañ ko ci moo di dafa teel a ñàkk way juróom jógee ci dëkk ba dëkk bi ñuy wooye bu nekkee ci diwaanu Fatick ndax di ñëw fi nga xamante ni moo di rekk ci diwaanu Ndakaaru ci fële nga xam ne moo di ci Grand Yoff ginnaaw bu ñu egsi foofule ci 2014 moom mu ci la daal di nekk ci ab tam-tam ci fële ci Grand fi bëgg a li nga xam ne moo di njàngam waaye di ni mel mu jiwul sori ndaxte ci classe quatrième dong ci la daal di yegsi daal di bàyyi li nga xamante ni moo di njàng mu lee wan ko ginnaaw ci loolu nag daal di nekk ci activité maanaam quotidienne mu di ay liggéey yu muy amal njaay ak yeneen ak yeneen ba ci sax nag app maanaam place su jaaykat boo xam ne ni ab couturier la nekkee ci Liberté 6 fa la daloon di nekk waaye ginnaaw loolu ci la daal di jógee ci bërëb boobule ngir daal di dem ci maanaam sud beauté boobule di fa amal liggéey ñu koy fay weer bu dee lu toll ci quarante 000 francs CFA. aji Sarr tey jii bokk ci Sénégal yi nga xam ne seen tur gën naa fës ci lu ñëwal li nga xam ne moo di wàllum l'enquête ginnaaw bi ñu ko dalee di mettre en garde à fële nga xam ne moo di ci section de recherche. waxtaan boo xamee daal dina jip moo di ne ci kàddu yi mu fësal mooy Ousmane Sonko da ko doon daal di violé ay yoon yoon moo ni bu njëkk ba daloon dina jàpp ne mbir mi du dala fës ndax tur ak doye bi nga xam ne dal na ko am ci réewum Sénégal tax mu daloon di noppi ngir rek ba ñuy yàbbi ci mbir moomu lay ginnaaw loolu moom bi mu amee lu toll ci ñaar fukki at yooyu la bi mu xamee ne dina daan fa ñëw ak ay fetal ngir rek menacer ko ne bi mu daal di siiwal li ni mel moo ne daal ci bi mu demee ba tàyyi ci wàll wi ni mel ci la daal di fësal ngir xam ne faw mu daal di ko boole ak askanu Sénégal mu di plainte bi mu daal di yëkkati. ginnaaw plainte boobu la ñu baree bari daal di weddi bokk na ci tàntaam ji nga xam ne moo joxe xibaar yi ni mel jàpp ne ab complot la bu mu daal di fësal tukkee ci li nga xam ne moo di doxalinam. daal dina dem ba boole ci ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkal ni ginnaaw ay fan mu ngi doon am ay repas yoo xam ne mu ngi jógee ci résidence bi di Mamour Niass te loolu amul mooy yi nga xamante ni mën na koo may ngir mu koy daal di dundee. ba ci loolu tam moo ni day magu ki nga xam ne moom salon beauté boobu la daal dina fësal ni ab mu ngi doon dox ci ndodd ki nga xamante ni moo di sërëm ngir ñu koy fay ay 40 millions am ñu dem ba fësal ni 15 millions daal nañ koo fay ki nga xamante ni moo di aji ngir rek mu daal di taxal wala tilimal ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko. ci loolu daal lu ci mënti doon ginnaaw app garde à boo xam ne am na ci ndoddum waaye teewul tamit loo xam ne ñu ngi ko koy dal di toppee askanu Sénégal ñëpp di xaarandi la moo mën a siiw wala sax nag indi ab leeraange tukkee ci wàllu wi ni mel ba léegi li nga xam ne daal dañ ko ci xaar mu di yoon daal di yàbbi ginnaaw ab garde à bu dox ci ñaar ñooñu li wara tukkee ci ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekkee ci doxalin boobule di wàllum accusation yu tukkee ci ndoddam moo Moni dey nekkul moom kese moom la ñu daal di teg loxo ndaxte ki nga xam ne tam moom Sweet Beauté moom tam dal dinañ ko teg loxo ak xibaar yi nga xam ne yëpp dal dinaa tukki ci li nga xam ne moo di ndoddam rawatina doomam bi ñuy jàpp ne dafa nekk ci ay jafeñ-jafeñ te soxla taxawale ñu ki nga xam ne moo di waajuram